Moussa Diakhaté euh, yor bokk gis-gis parti bokk gis-gis ñu lay nuyu di la dalal ci Rewmi fam maa ngi lay fay di sant Elisabeth di nuyu ci bés bi. Mhm, Moussa Diakhaté waxtaanee ci xew-xewu démb gi muy stade bi nekk ca Diamniadio bi nga xam ne euh, tey euh, turu kii di maître Abdoulaye Wade lañ ko tuddee tey nan nga jàngatee mbir mi justement. jàngat bu njëkk bi mooy li olof Njaay di wax ni lu am mu rafet su amuloon mu ñaaw. Mhm. stade bi nga xam ni ñu ngi ko dàppee kii di maître Abdoulaye Wade nekk ku kon président de la république nekk ku spécial ci ñun ñi nga xam ni ñoo nekk ay libéraux fii ci Sénégal ndax mooy bàyyi li ñuy wax libéralisme ki nekk njiitu tey Sénégal ci keppaaram la màggee. Mhm. kon bu ñu defee stade bu ñu toll. bi nga xam ni président FIFA ci boppam nee na yi dàq ci àddina ci la bokk. Mhm. biñ ko rafetloo en tant que doomu Sénégal en tant que doomu Afrique. ci stade bi nga xam ne nii tolloo na ak dayoo yi ak effort bi nga xam ne nii sunu gaynde yi ci football def nañ ko. kon day rafet loolu itam ñu rafetlu benn stade bi standing bi mu toll dayoo bi mu am melokaan bi mu am ak fi muy teg Sénégal ci ci yëg-yëg ci rëy ci yaatu rawatina nag bi nga xam ne dañ ko tuddee kilifa gu màgg googu di la président Abdoulaye Wade luñ ko tuddee ci réew mi rek jomb ko waaw jàpp naa ni sax xëy na yéex na waaye Olof Njaay day faral di wax ne yàlla xamul moom. Euh, lu war lu jot la xam defe naa ni kon jot na ñu ciy jaajëfal aussi président Macky Sall mi am gis-gis boobu ba yéene tuddee président Abdoulaye Wade bi mu tuddee président Abdou Diouf tuddee président Amadou Mokhtar Mbow tey bu tuddee président Abdoulaye Wade duñ def lu dul rafetlu ko bu baax a baax a baax nag en tant que sénégalais mais rawatina en tant que en tant que bokk gis-gis ndax Euh, lu neex euh, suma kilifa di président Pape Diop jàpp naa ne dina neex ñun ñi nga xam ne ñoo bokk boosi te saa yoo sargalee kii di Ablaye Wade gëm naa ni président Pape Diop fa mu toog xolam feex na. Mhm, muy seen gis-gis waaye ñenn ñi nee nañu politique da koo lal ndax yow gis nga li ni mel. Euh, Olof Ndiaye day faral di wax ni. uude lu mu wax ci bëy bu feebar ñu ne der baa tax <laughs> président de la république naam institution politique la lépp lu mu def rek politique la mhm. mais li ci ëpp solo te mu xëy na sa munu see ñàkk politique ndax li am itam bu ñu fàtte démb diggante moom président Macky Sall mi tuddee tey président Ablaye Wade seen démb neexuloon mhm. demoon na ba ay kaddu yu ñagas sa jógee ci benn wet dem ca beneen wet donte nettali xuloo xuloo la bésu jàmm lañ nekk bés bu rëy la duñ ko xajamal waaye day baax sooy jàng it nga teel jógee démb ñëw tey pour mën a comprendre kon suñu demee ba jëmmi jamono ñu mën a toog président Macky Sall jël stade ni xalaat ci kenn ku dul président Abdoulaye Wade dama ne la woon lu ci bari woon ni na du def ne loolu rek foog la nag aw lu ma ci wóor jàngat rek bu may def ndax ñu daanul wax suñ demee bay tuddante ko euh, ay ay ay ay doom wala tuddante ay stade mooy ni diggante bi gën nar a tax te loolu mooy li normal ndax président Macky Sall ni ma ko waxee ci njëlbeen te keppaaru président Abdoulaye Wade politique rek moo tëradi réeroo amoon seen diggante su demee nag ba réeroo boobu kilifa yi waxoon ci muy kilifa diine di kilifa aada ñu bari dox ci suñ demee ba jàpp ni loolu réeroo boobu ma ngay dëñ président Macky Sall posé acte bu fort ndax lii mu def du lu ndaw président Abdoulaye Wade itam ci communiqué PDS bi ma gis rafetlu ko lool gërëm ko en tout cas du du ñuy rafet donc politiquement effectivement mën nañ jàpp ni dégel am na mën nañ jàpp ni sax jege jaaloo mënta mën na am seen diggante wóoruma nag jàngat la rek bu ma def ci diggante boobu. mën nañ koo jàpp sax yow tey euh, ànd nga ci euh, bu demoon tey euh, ba mu am jegewoo diggante Wade ak Macky. waaw ànd diggante Macky sàll ak Wade jegewoo mooy li normal hmm. mooy li waroon am ndax Macky Sall doomi Abdoulaye Wade la li may wax. Euh, ñi nekkoon ci pré wala ñi nekk PDS ñoom moo gën a xam. Mm. keroog bi ñàkkee nguur gi président Abdoulaye Wade ba ma mi joxee passation de service lim def mooy ñaanal le président Macky sàll woo njabootam te ñu bokkoon ci jamono jooju ne leen fu mu leen soxla wuy ji leen ko. Mm-hmm. li njëkkee ñaaw nag bu dee dëgg rek yàlla bëgg mu ngi jógee woon si ci kaw président Macky Sall ma jàpp di juumoon na. ci diggante ni mu doxalee woon ak président Abdoulaye Wade. Mm-hmm. su yàlla defee ba jëmmi jamono mu soppi ko am nu mu taxawee. defin bi mooy li rafet rek te seen ànd mooy li war su amul rek mooy am na am na anomalie bu dox seen diggante ndax dama gëm man Moussa Diakhaté ni ànd ànd koo wóolu ànd koo xam ànd ko miin ànd koo bokkal gis-gis ànd koo bokkal idéologie ànd koo bokkal gis-gis si doxalin àddina te ñoom defe naa ni ñoo gën a xamee kon su président Macky Sall mu ne ànd ak keneen ko mbokkul ci yoon ci gis-gis ci idéologie masama kër gi mu nampé masama bàyyi ji ko formé ba préparé ko ba mu nekk président de la république muy président de la seen diggante kon bu ci ànd amee lu war a normal la maintenant ndax am naam amul loolu ëllëg dinañ ci wax lu leer a leer kon tey Moussa Diakhaté yow ànd nga ci ñu naan nañ dajalewaat famille libérale bi xam nga man damay nekk ci keppaaru mag mu ñuy wax président Papa Diop. Mhm. may fàttali ne 2013 fële ci obélisque bi benn meeting opposition bi amee. Mhm. moom jëloon na kàddu di wax retrouvailles famille libérale jamono jooj nag sunu frère Karim Wade mu ngi woon ci prison bi. bari nañu nekkoon PRS ñu doon ŋàññi jamono jooju le président Pape Diop ci wax jooju mu waxoon. Mhm. amoon na itam sañu nekk ci nguur gi ko doon ŋàññi waaye mel na ni tey dëgg euh, situation politique situation politique moo koy réglé te man dama jàpp ni diggante famille libérale dañu war a ànd c'est l'occasion d'ailleurs ma jaajëfal sargal waa Yewwi seen àndin te nga xam ne ni forte dose socialiste la bu dee sax am na benn benn ay libéraux wala ñoo xam ne nii ñu ngi ci centre bi ñu ci ànd li ci ëpp ci Yewwi c'est de la famille socialiste mu mel ni ñoom gis nañ gëm nañ ni dajaloo def ab say la jamono toll fa la àddina toll uh-huh. massament nag libéraux yi mm-hmm. Mm-hmm. kon libéraux mooy dajaloo def ab say ñoom itam fexe itam taxaw njëriñ njëriñu askan wi rek nag taxawal jëw d'accord ci dajaloo googu lee ndax Pape Diouf woote googu mu woote woon bi ngay wax nii da koo dëggal tey. déggoo Pape Diouf nag day biri ma ca benn baat ba. fam ne woon ah, jóg ñoo ngi ne ñoo bokk gis-gis euh, moo ngi gën jege euh, nguur gi. non da naan koy ñoom ñoom c'est que Pape tëggin la am benn tëggin benn galañ benn feccin. bu dee mën naa ko wax ci kàllaamay wolof bu gën a yemee mbaay mooy ni fam ne woon jógu fa li mu gëm mooy heure bu Sénégal soxlaa en tout lieu mhm. et là defe naa ni seetlu ngeen ko saa yu Sénégal soxlaa mu taxaw ca mbas mi gisoon nga ko mhm. keroog ba ñuy woote Lions yi bañ ko yëgee invité ko gisoon nga ko mhm. avant loolu day nit koo xam ne ni lu wax lu ñaaw lu jëf lu ñaaw Sénégal rek ko ñor waaye ci kaw dëgg ci kaw jub donc su fekkee ni famille libérale bi moom da lu mu théoriser la bu ko ci fekk see nag mooy ni dañ naan amoon na gis-gis bu yàgg. Mm-hmm. te li mu waxoon defe naa ni mu ngi toogoon ci benn télé nga baal ma publicité bi pour mu gën leer ci bopp nit ñi. 7TV mm-hmm. la ak soxna Maïmouna Ndour. Mm-hmm. mu ni woon bañul forme famille libérale bi waaye daje famille libérale kenn mënu ko def di ci seppi le président Abdoulaye Wade. kon ma jàpp ni kon gis-gisam boobu bu nekkee man jàpp naa ni lu rafet la war a doon te lu nit ñi war a assumer la gis nga politique Elisabeth. foog nit ñi di am courage seen i idée ñu koy teg bëccëgu ndara kàmm di ko dox di ko assumer léeg-léeg nag moo am ay jamono yoo xam ne ni c'est des décision impopulaires mm. maanaam du loo xam ne ñu bari diñ ci ànd ndax bëgg li nga bëgg mën naa gisee neneen mën naa xaar waaye ku amul fit ku ñemewul li ngay def te li ngay def nekk dëgg goo gëm ñaare ci politique doo ci sori looloo tax may wax ñëpp di leen conseil ni leen nañ dem lire sama livre doomu ndey boobu di Alioune Sow mm-hmm. mooy le courage d'agir maanaam am sañ-sañu ak doole yi surtout li ngay def nga ñeme ko te nga koy def bëccëg te mu bañ nekk ay bruit de couloir wala de ko def ci le dos des waaye lépp loo xam ne jàpp nañ ni bu ñu ko defee njëriñu sénégalais yi la jàpp naa ni ku koy def lu am solo la te jàpp naa ne retrouvaille famille libérale bokk na ci liy jaajëfal benn famille libérale bi waaye lu yëkkati niveau débat politique bi ci ay pôle yu mag ndax fa la àddina toll kon yow tey mën nga ñoo firneel ne bruit de couloir yooyu jëm ci bokk gis-gis ba fii ñuy wax ak yow mi di porte parole bi euh, gisee ak waxtaan amul seen digganteeg Macky. ay yow de defe naa ne xam nga ma sama téléphone tëjalu leen. Hmm. te man xam nga ni duma ma du ma du ma du ma du ma du ma waxantu damay wax. Hmm. du ma xunumtu damay damay jéebaane. su fekkoon ni am na <laughs> sauf dama ni man Moussa Diakhaté ba mm. fii may wax ak yow. Mm. yëguma fu sama parti nekkee ci négociation wala fu muy waxee. Mm-hmm. waxuñ ma ci yëguñ ma ci yëguma réunion buñ ci wax te président Pape Diop du ñu toog ñaari fan yu déggantewul. bu mm-hmm. amoon itam nii nga ma wooyee nii lay amee fulaak fayda wax la ko. Mm-hmm. parce que boo demee ba la def ñeme woo ko wala def ci suuf jàpp naa ne dese gaa mat kilifa. li ma la gëm daal te ma wax la muy bokk gis-gis ña nga ca la ñu nekk. te gis nañu ci local yi ni ñu demee woon ni ñu taxawee woon jóguñu ci. mooy fexe nu ñuy daagaanee baatu askan wi liggéey ko comme parti yëpp ni koy defee ci réew mi. et justement ci euh, nga wax ko euh, gis nañu bokk gis-gis ci ba ñuy dalal euh, ñi di gaynde yi démb nag ba ñuy inauguré gisuñu leen lu ko waral. li ko waral mooy xam nga foofu nga dem fa da ngay am carton d'invitation. Hmm. yàlla def na nag joxuñu ko bi ñu ko joxee ca inauguration wala décoration Lions yi. Hmm. le président Pape Diop bu njëkk dem na ci aéroport ba. deuxièmement bi ci Lions yi Euh, décoration bi man mii di wax ak am na ñu ko gunge woon ñu dem. Mhm. fekkee ji bañ ñu woowee ndax lépp luy taaral Sénégal lépp luy njariñu Sénégal kenn duñ ci xaar waaye comme stade bu fële carte d'invitation la te jotuñu carton d'invitation moo tax man jàpp naa ne président tam Pape Diop ak waa Bokk Gis Gis ñu ci bari ci télé bi lañ ko seetaanee muy fête bu mucc ay bu rafet lool ci Sénégal. Mhm. Moussa Diakhaté ñu wax ci élection yi nga xam ne moom la ñu wees muy élection territoriale yi tey ban jàngat la ci Bokk Gis Gis def gannaaw nag candidature am woon nañ ko ci élection yooyu a ah kan li jàngat bu am solo naam la ñu bëggoon en tout cas par exemple fii ci Dakar la bëggoon. Hmm. yàlla defu ko. Hmm. Euh, mooy defoon Pape Diop maire Dakar ñëw nañ présenter programme. wax ko Dakar waaye bari na nag ñu am suñu sympathie mais bu ñu demee ci urne yi li ñu constaté mooy nit ñi ñu ngi voteel fii ci Dakar li ci ëpp yeewi askan wi muy occasion d'ailleurs ma féliciter le jeune maire Barthélémy Dias di ko ñaanal yéen bi oyof mm. mais jàngat beneen bi mooy su weesoo Dakar mm-hmm. ñun ñu ngi demoon ci téeméer ak juróom benn communes. Mhm. maanaam ci six département am nañ juróom ñaari mairie yoo xam ne ñoo ko gañal suñu bopp. Mhm. am na ñaar yoo xam ne def nañu recours toog gi xaar kon te am nañ ci yaakaar mu war a nekk kon juróom-ñeenti mairie yu ñu gañal suñu bopp boo doon xaymaa lim ñi ñu voteel ci nga xam ne nii mooy six. Euh, département yi. Mhm. mu ngi toll ci sur quarante cinq département mu ngi toll ci quatre vingt mille six cent soixante dix voix li muy surndeer rek mooy ñi doon xeet wala ñi suuse si moon bokk gis-gis. gis ne ñi bokk gis-gis parti bu am la bu taxaw la bu nekk ci Sénégal la bu bu buy liggéey la jëm ci ay élection mais beneen jàngat bi aussi mooy ni lii dëgg te ñëpp jàng ko mooy ku bëgg a gañe ay gox ku bëgg am ay ay ay ay baat il foog ngeen dem ci lëkkaloo dem ci daje dem ci coalition loolu mooy lecture bi nga xam ne ni man ci sama jàngat bu bopp bu gàtt moom laa gis ni donc ëllëg lii xew ci wàllu élection bu mënta doonati ku ciy dem te bëgg cee am lu am dayo lu am foog nga lëkkaloo ki ay nit waaye lëkkaloo itam foog nawlante doon laytaay gi bu ko defee njëriñ ju juddu ci ñu koy seq. xanaa loolu mooy perspective législative yi ñu jëm. ni da ngeen di waajal ay euh, lëkkaloo ak it ñeneen. waaw xam nga mooy sama gëm-gëm man comme sama parti waxagu ci ci législative yi. Hmm. bëgguma àdd bu ëllëgee ñu may yey ci kàddu. Hmm. waaye man sama gëm-gëm mooy àddina dafa toll ci lépp lu ñuy def. booloo dajee def ko mooy li ëpp solo. même bu fekkee day am diversité comme ni mu ko amee démb ñu leen di jaajëfal yéen taskatu xibaaru Sénégal yëpp. Hmm. ndax démb événement bi xewoon télé boo ubbi ci Sénégal gis nga ko ku nekk ci mbokkul safin ku nekk ak na ngay doxalee muy lu rëy waaye aussi c'est une grande occasion nga may ma ko fii. du hmm. publicité du lenn comme damay faral di xaxaar waa RTS. démb nag on a une télévision sénégalaise pour des grands moments c'est l'occasion de les saluer aussi de saluer toutes les yi daal législatives ñu ngi koy waajal. nan lañ ciy demee loolu lu ñuy waxtaanee suñu biir la waaye man Moussa Diakhaté li ma gëm ni mooy dëgg mooy ni suñ ci bëggee dem te sori faw faw faw ñu dem ci ak doole faw ñu dem ci ab coalition waaye ban coalition lay doon loolu mooy li nga xam ne ni moo desee leer ci bopp nit ñi te dinaa ko man défendre sama biir parti défendre ko aussi ci ci ci ci instant bu bokk gis-gis yi. Mhm, ñu lay jaajëfal bu baax a baax Moussa Diakhaté nga yor kàddu euh, parti bokk gis-gis. di la sant di leen gërëm di leen dox daje ci bés yàggul dara.